ba tey ci scandale du jour de ce 9 mai Talla Sylla yëkkati na ay kàddu ñu dem déglu ko ñëwaat. dama bëgg ñu xol manipulation bu bees bi nga xamné ñu ngi koy jéem def wa Touba. Légui fi lañu bëgg population bu Touba. mbokk yi suñu nguur gu bes gi dafa bëgg a gëmloo waa Touba ka képp ku am lu la naqadi ñaxtu ko ci kanamu sëriñ bi ma bëgg a woo waa Touba ci ñu doon ay nit ci ñu xam ñoom ñooy ñam ci ñu xam dëkk bi ñu dëkk lan la représenté ci Sénégal amul dara loo xam ne war nañ ko ñaxtu di ko laaj sëriñ bi ndax fayuñ ko suñu ay impôt addiya lañ koy jox te miñ ñu koy delloowaat ci suñuy jëmm di ñu ko delloo ci suñu dëkk mbokk yi état bu senegal moo njaboote mboolem sénégalais yi kon ku am naqar moom nga ko war a dama bëgg ngeen xam ne 557 yi Sénégal euh, commune yi Sénégal am Touba moo ci ëpp mbooloo maanaam Sénégal juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaari commune la am commune yépp Touba moo ci ëpp mbooloo kon Touba mérité nañu respecté ko ma ne sur les quarante six départements yi nga xam ne moo nekk ci Sénégal ba mu daj département bu Mbàkke moo fi ëpp mbooloo te buñ nee Mbàkke Touba moo tax kon Touba jot na pour ñu delloo ko tëram mbokki Touba bu fekkee ne ci wàllu contribution économique ginnaaw dakaar Touba moo ëpp lu muy dugal ci gafak ak réew mi te dama ne fii ak fukki at ci kanam dina romb Dakar. jàppal ne Dakar dina dugal ci gafak réew mi lu mu ndaw ndaw vingt six ba trente pour cent ci économie wu senegal dakaar moo koy joxe waaye dama bëgg nga xam ne ci économie wu senegal dix huit ba vingt et pour cent Touba gi ñu dëkk ñun moom la ci dugal ci économie bu senegal kon dëkk boobu mérité na am ndox mu neex mu baax moo xam ne ña dëkk dinañ ko naan te duñu feebar dara du leen jot beneen bi ci des. ñaata conteneur tey mooy génne ci port bu ndakaaru di dugg biir Touba ginnaaw Dakar Touba mooy dëkk bi ëpp lu ay conteneur di dugg ñaata billet d'avion la ñuy jaay walla boog la ñuy jënd waa Touba di ko jënd surtout nag bu dee période màggal yi parce que du ma wax màggal gi ndax màggal gi lu rëy lay def ci senegal mais am na yeneen màggal yoo xam ne aussi dañ ci war a bàyyi xel. Touba mooy première client wu Sococim Dangote euh, ciment du Sahel doon première client wu Tigo doon première client wu Expresso doon première client wu doon première client wu noonu laa ko mën a lime bari te fu mu doonu première ma nga ca deuxième ba mbokk yi naka lañu ñu mën a amee dëkk bu toll nii ak li muy def ci réew mi ak li fi nekk ci population ak li ñuy jëfandikoo lépp ba pare ñu nangu chaque jour ay politiciens du ñu jëfandikoo di ñu jaxase ak suñuy kilifa diine di ñu gëmloo ne boo leen amee naqar sëriñ bi ngeen ko war a laaj lu tax ñu koy laaj sëriñ bi suñu impôt yi kan lañu koy jox kooku moo ñu war a defal assainissement bu baax. kooku moo ñu war a jox ndox mu baax moo xam ne dañ koy naan te dara duñu ci fekk amuñu ndox mu doy amuñu ndox mu baax ba pare di def lii lépp ci réew mi ñun waa tuubaa ñu ñàkk fayda di ñaxtu naan sëñ Muntaxa au nom de lan dañ war a tuddee sëriñ bi nañ ko delloo respe beneen bi mu mënta d'accord mooy élection bu bu ñëw Touba mooy fale ndax li di fiy wote bu wotee ku mu ko sont ci sa compte nga dem falu ci te ku falu fàtte Touba. est-ce que jotul ñu am ëllëg suñu ay candidat wu bopp am suñu ay député wu bopp su ma am suñu ay député wu bopp mooy député yoo ne waa Touba ñoo leen di tànnal seen bopp ci seen député ne bu ñu demee assemblée nationale du ñu défendre couleuru benn parti li ñuy défendre lenn képp la war a doon et intérêt général est-ce que li New yor millions nit yi fi li ñuy dugal ci kër réew mi. kon yaakaar naa ñoo ko déggandoo man nag Touba ak ay mbiram dafa xaw a sensible ndax Sénégal da ngay joxe sa xalaat ñu ne la naafekk nga Sénégal da joxe sa xalaat ñu ne la noppil xamoo li ngay wax ñoom ñoom rek a xam. Hmm, Sénégal da ngay toog di wax li nga xamante ne jàpp nga nit lii mooy jaar yoon te mu leer la ni li nga wax nii loo nekk nekk xale lii nii xel mën na koo nangu ñu yàppee la fenkat wala di la di la saaga wala di la bunduxatal Euh, waa Touba seen sujet dafa sensible man j'aime même pas parler de Touba bugguma parce que dafa sensible Touba ñoo fal Jomay Fay majorité Touba li Jomay am Touba amu ko ci benn dëkk mën nañ wax loolu bu ko amee tamit bëriwut Touba gii dëkk sëñ saa sëñ ah Jomay am na fa doole de ci wàllum vote bi bu ñu matadee nag ba seytaane jéey leen ba ñu naan ñoom lu ñu soxla dañ koy dem wuti ci sëriñ ba ndëgg la mais est-ce que sëriñ ba bu mu leen teree nangu woon nañ bu mu nee bugg fi politique buggu fi manifestation est-ce que askanu Touba am na si ñoom ñoo xam ne déggaloon nañ sëriñ bi ku wax nag ñu ne la seytaane moo tax j'aime pas parler de Touba maanaam su ma ciy wax sax na nekk lu positif sëñ Muntaxa def na lii sëñ Muntaxa def na lii yàlla na fi yàgg te wér

sa xalif la sa kilifa la mat ko lool ñu koy ñaanal yàgg fi te wér waaye nag boo leen jàppee ni mooy saafara seen problème ah ñaan leen ko ko mën na ko ndax yàlla <laughs> du seetaan ku ànd ak moom te suñu sëriñ yi dañoo ànd ak yàlla suñu boroom ba tax luñ ko ñaan mu may leen ko yàlla bu yaakaar tas rekk ñoom foofu lañ ko gisee taalasil la ñoom dañoo gis ne mun Muntaxa moo leen war a jox moo leen war a dëfal moo leen war a dindil seen coono sëñ taxa mën na leen ñaanal waaye nag ki ngeen war a woo ci ndimbal muy ndox muy courant muy lekk ak naan mooy ki ngeen votel Bassirou Diomaye fay ndax moo ko gën a yelloo sëñ taxa bu ñu amee nañ koy defal taas taaf lu barkeem nañ koy defal wut barkeem mais bu ñu toog xaar moom mu defal ñu ndax sëñ Muntaxa faluñu ko sëñ Muntaxa du président suñu kilifa la nag ba ci président bi ndax gis ngeen image yi bu mu fa demee les images parlent yàlla dafa am cër bu mu leen jox ak noo munti toll boo yëggee si ñoom dangay ngay wàcc force ndax yàllaa leen yëkkati. kon nak wa Touba bu ñu njortee ni ko mën nañ jooytu ci muntaha mu defal leen ah loolu lañu bëgg man nak Touba duma ci mëna a lu bëri duma ci mëna wax lu bëri parce que sujet bu sensible la la leen wax duma ci sawar muy Touba muy kaw la keur généraux yi manam lu jëm ci ñoom di ci sori wallahi azim parce que do xam nit ki fu muy juggé jël wax ci yóbbuwaat ko fenen Sénégal dafa nakaré wax wallahi da ngay ñëw mais doo xam dëgg pour chaque fois lan laa war a wax est-ce su ma waxee lii c'est tellement difficile